أم بها عطيف إثر همز همز التسوية أو همسة عن لفظ أي مغنية أم dana doon xarafu ataf ci ñaari barab su fekkee li ñuy wax xamsa tasbiya moo ko jiitu xamsa kuy tegtale yamuk yaar yañu koy booleel niki sawaun alayhim a anzartahum am lam tundirhum xamsa li xamsa a anzartahum jooju nga xam ne cosaanam moo doon listifaam moom la ñuy wax xamsa tasbiya ndax day teg mooy ci tegtale ni inzaar bi ak adamul inzaar bi mooyam ci ñooñu laa yuminuun sawaun alayhim a anzartahum moo xam waar nga leen am lam tundirhum la sa inzaaruka wa adamuhu sawaun looloo tax ñu di ko xam sa yemale xam sa tasbi kon am bu dikkee loolu niki am lam tundirhum loolu atafuk fi'l ci fi'l la jumlay anzartahum la ataf jumlay am lam tundirhum am jooju xarafu ataf la bu dikkee ci gannaaw xam sa tasbi wala mu dikk ci beneen hamsa gannaaw hamsa goo xam ni moxniyatun lu remplace le an lafsi ayin walis baatu ayu remplacé na baatu ayu niki dégg nga aqaama zaydun am amrun am jooju xarafu hamsa ko dawlu goo xam ni mook hamsa gi maanaam mook am ji dañ ci laaj taayinu ahadil amrayn aqaama zaydun am amrun maanaam ayuhuma wala aqaama zaydun am qaada ba tey ayuhuma yaarif am sa yooyu bu ci dawlu am xarafu ataf lay doon suñu dawluwul nag ah kon du dootu doon xarafu ataf mu doon rek xarafu lidraab maanaam dana ataf sax waaye kon dootu yor maanaam tam tasbiyaak maanaam kile bu dee ci hamsa taswiya googu nag wa rubbama usqitatil hamsatu in kaana xafal maana bi hadfiha umin wa rubbama usqitatil hamsatu léeg-léeg ñu mën a bàyyi hamsa gi rotal ko maana xadaf ko in kaana bu nekkee xafal maana xafaaul maana nëbbug maana ma ñàkk leeru maana ba bu nekkee ni umina wóoloos na ko kenn jàqu ko bi hadfiha ci sababu xadafu hamsa gi du tax ñu jàq ni maanaam mi dana lënt xam nañu ne dana leer kooku moom mën naa bañ a nekk ni ki qiraatu sawaun alayhim anzartahum qira riwayatu xafsa an asim anzartahum xamsa googu dikkul a anzartahum li ñuy wax maanaam qiraa anzartahum maanaam dafa am ñu ko jàngalaa ni waxuma ni xafsa mooy jàngalaa sawaun alayhim anzartahum am lam tundirhum ma ngi mel ni kit waxu shaair la amruka ma adri wa in kuntu daariya bi sab'in ramayna aljamra am bi thamaani abi sab'in ramayna am bi thamaanin mu indi li hamsa googu ci ni rek bi sab'in maanaahu abi sab'in am bi thamaanin loolu mooy mën nañu ko xadaf bu fekkee ni xafaaul maana ma'muunun lu ñu tiitul la nee na kon mënees na ko wa binqitaain wa bi maanaa bal wafat in taku mimma quyyidat bihi xalat am nag dana nekkit binqitaain amma bu nekkee ci bu ko ñaari hamsa yi paasu dawloo kooku kon muttasila la ñu koy tudde am an munqatia nag dana nekk moom in taku su nekkee xalat diwéet mimma quyyidat bihi ci lañ ko tënke woon te mooy ànd ak kenn ci ñaari hamsa taswiya wala bi nga xam ne yutalaw biha taayin bu boobaa day doon am munqati a lañ koy tudde wa bi maanaa bal ak it mu yor maanaam bal xarfu lidraab lay doon ni ki seen wax innaha la ibilun am shaa'un am yaquluuna aftaraahu laa rayba fihi min rabbil alamin am yaquluuna aftaraahu bal yaquluuna iftaraahu kon munqatia la innaha la ibilun am shaaun bal innaha shaaun shaaun ay gàtt la maanaam jamu shaatin moom la ni woo fat dikk na moom am binqitaain ci dagg ñu di ko tudde am al munqatia wa bi maanaa bal te ko nit day yor maanaam bal doon xarfu lidraab mel ni da nga wàcc li nga doon wax wax leneen ni ki innaha la ibilun am chaun déet ay gàttalaka washkuk wa idrabun biha ay dannumi nee na aw de xayir dana na nga tànnalu biha ak aw bi aw ak aw nga nekk ñuy misaale tazawaj hinda aw uxtaha wala jaalisil xasana aw ibna sirina ci bu jëkk ñu daan ko misaale ndax yoon yu jëkk xëy na dañoo nekkoon ci jamono yi ñooñu abix daga na la lag aw ba tey lu dëgg maanaam suñu ne if al kaza aw kaza maanaa lu la ci neex def li wutale ibaaxa nag ak taxyir taxyir moom mënuloo leen a boole suñu nee tasawaj hinda aw uxtaha kenn nga cay xaltaan waaye doo leen mën boole kooku kon taxyir la ibaaxa nag jaalisil xasana aw ibna sirin ñaari alim yi ku ci ne am na majlis day jàngale fànn ga muy jàngale ñu ne nag na ngay toog fi majlisu diw wala diw maanaa boo ci bëgg a def baax na soo leen boolee it baax na loo teg taxiir taxiir moom kenn du leen boole kenn ngay jël ibaaxa nag su la neexee boole yëpp su la neexee def kenn su la neexee bàyyi yëpp xasim séddaleel it ak aw alkalimatu ismun aw fi'lun aw xarfun maanaa ay aqsaamam noonu la toll yooyu yetti maanaa nag imma danañu ko jëfandikoo ci yooyu yetti maanaa dana def taxiir tasawaj imma hinda wa imma uxtaha dana nekk ibaaxa jaalis imma alxasan wa imma ibna sirin dana nekk taqsim alkalimatu imma ismun wa imma ficlun wa imma xarfun wa abhim lama litam ak moom dégg nga niki tey wa inna aw iyaakum la ala hudan aw fi dalaali mubin yonent bi doon wax loolu nit ñooñu ko yónni ci ñoom te ñu di ko weddi moom wóor na ko ni moo ne ci huda wóor na ko ni ñi muy waxal ñoo ne ci dalalin mu biin waaye nag comme ñoom gëmuñu moom it mu ni leen baax na kon ah xam naa maag yéen am na ci ku nekk ci njub mbaamu na ci cànkute washkuk sikk sàkkaal dana tax nga def aw niki jaa imma aw zay jaa zaydun aw amrun boo sikki sàkkaa ku ci ñëw diw mbaa ñëw da diw am na ci ku dikk imma aw zaydun yooyu su ko defee wa idraabun idraabit numiya askane nañu ko biha ci aw jooju numiya biha idraab askane nañu numiya mu maanaam aw mu nekk xarfu idraab mel ni ki bal ni ki kay jàmbat njabootam gu bare di wut kilifa gi ko ca dimbali ba naan ko kaanu thamanina aw zaadu thamaniyatan law laa rajaauka qad qattaltu awlaadi ne ko kaanu thamanina njaboot gi nekk nañu lu mat juróom ñett fukk ci ay doom qad buliitu bihim maada tara fi iyaalin qad buliitu bihim lan nga xalaat ci njaboot goo xam ne dañ ma leen a nattoo lam uxsi iddatahum illa bi addaadi mënumaa lim takk seen lim lu dul suma amoon limkat bu mat ku mën a waññ waññal ma ko ndax kaanu samaaniina aw zaadu samaaniyatan maanaa bal zaadu juróom-ñett fukk lañu mu ni déet tegu na juróom-ñett aw jooju bi maanaa bal law laa rajaauka qad qattaltu awlaadi bu dul woon sa bu dul woon sama yaakaar gi ma la yaakaar nga dimbali ma ci kon danaa leen rey par benn benn ba mu jeex qad qattaltu bi takthiril fiil wa rubbama aaqabatil waawu ida wa rubbama aaqabatil waawa ida lam yaku zu nutqi li labsin man fada nee na raw aw nag mën na remplacer waaw ci maanaa léeg-léeg ida lam yakku su fekkul zo nutqi boroom kàddu ga man fadan jaarukaay li labsi ci lënt bu fekkee xam na ni ak lënt amu fa fu mu tàbbi maanaam it du lëndam mukk nee na kon aw ak waaw mën nañoo remplaçante foofu niki kii tagg amir bi daan jaa alxilaafata aw kaanat lahoo qadaran kama ataa mu rabbahu muusa ala qadari isharatan ila qawli taala laqad jita mu ne summa jita ala qadarin ya muusa jaa a dikkal na alxilaafata xilaafa gi aw kaanat maanaa wa kaanat te nekk xilaafa ga lahoo ñeel ko qadaran cib dogal kama ata ni ki dikke muusa rabbahu ala qadar isharatan ila qawli qad jita ala qadarin ya muusa summa jita summa jita ala qadarin ya muusa kon aw kaanat jooju maanaa wa kaanat fa aqabat aw alwaaw remplaçante na ak waaw foofu dégg nga mu ni wa mislu aw fil qasdi imma thaniya wa imma thaniya immaay ñaareel moo tax nuy wax de imma ju jëkk du xarafu ataf soo ne jaa a ñëw na imma zaydun wa imma amrun immaay ñaareel ji lañu lim ci xarafi ataf yi amma liñ ciy wax nag est ce que xarafu ataf la xaqiqa te loolu la siiba waxi jublu wala déet ah ndax nee nañu si booy ba mu naan imaam moog awayam jubluwul ni xarafu ataf la maanaam ñooyam ci maanaa yi ñuy jëm ci aw moo taxoon muy wax mën na nekk li chak mën na nekk li ibaha mën na nekk li taxyir mën na nekk li ibham kon maanaa yi aw man imaam mën na ko waaye waxul woon ni xarafu ataf la ci boppam amaa ñoom nag ba mu ne aw wa imma ka aw rek moo tax ñu daal di ko fi lim ci buntu xaraf yi am nañu ni moom jubluwul ne xarafu ataf la ndax xarafu ataf du dugg ci xarafu ataf su doon xarafu ataf la du di ànd ak waaw foo ko fekk imma zaydun wa imma amr waaw wi mooy xarafu ataf waaye imma moom du xaraf waaye nag moog aw ñoo bokk ay maana yi mu waxoon rek taxyir ibaha taqsim ibham wala chak mbaa tashkik sikk yow ci sa bopp wala sikk sàkkaloo keneen yëpp ay maana la yu ñuy jublu wa mislu aw moo tax ibnu malik moom wa imma thaniya immaay ñaareel mislu aw comme aw la fil qasdi ci jublu ay fil maana pour yeete ni ba si ba wayi ne moog awa yam ci maanaamee tax mu yox waaye waxul ci amal bi te mooy atal wa aw li laakin nafyan aw nahyan wala nidaan aw amran aw isbaatan tala laakin itam xarafu atab la fiñ koy dugal fan la mu ne wa aw li na nga sësale laakin na nga ko sësale ci nafyan aw ak dàq ni ki boo ne maa jaa a saydun weddi nga dikkam nga ni laakin amrun amrun laakin ataf na ko ci saydun aywa dàq nag dikku zayd saxal dikku amr aw nahyan ni ki laa tadrib zaydan laakin amran wala laa itam xarafu ataf la fu ñu koy dugal na nga ko tofal nidaa an nidaa ni ki yeb na axi lab na ammi su ko defee yabna axi ibna munaada la mansuub la ndax mudaaf la mansuubun lafdan ci yabna aywa su ko defee laa di xarafu ataf moo taxit nga ni laa ibna ammi labna ammi laa ji moo waral nga nasab xarafu ataf la moo tax ibna ammi itam nga nasab ko ndax danga koo ataf ci lu ñu nasab a nidaa an aw amran wala mu topp ci amran ni ki idrib zaydan laa amran idrib feelu lamar idrib zaydan laa amran wala isbaatan man nga ni jaa zaydun rek ni laa amrun kon laa moom mën na topp ci nida mën na topp ci lamar mën na topp ci isbaat mooy loo xam ne xilaafu naay lu dëgg aw talaa wala mu topp yooyu isbaat wabal kalaakin baada masxuubayha kalam akun fi barba'in bal tayha bal it kalaakin moog laakin ñooy yam ci bu ko naf yu dawle dawe dawloo wala nahyu yaar yooyu laakin daan àndal bal bal ka laakin moog laakin am ci yooyu baada ma sow bay xaa gannaaw gannaaw yi bu dikkee ci gannaaw yaari àndaalay laakin yaari àndaalay laakin niki nafyu ak nahyu ci wàllu nafyu mu ngi mel ni nga ni lam akun nekkuma fi marbain ci palaasu kërug rabia makaan bu ñuy nekk waxtu rabia mooy marba bal tey haa maa ngi nekk ci àllu mandik tey haa tey haa kon ña ngi ko ataf ci marbain lam akun fi marbain bal fii tey haa majrurun maatufun ala marbain وانقل بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي نبل نك وانقل بها ci wàllu maanaam jëfam moom wax nanu ko maanaam la nuy junj wanqul toxal ci wàllu maanaam biha ak bal xukmal awali atteb ba nga jëkk a tudd moo xam isbaat la woon wala nafi na nga ko atte li saani jox ko ku ñaareel ka soo ne fa yakunu lawalu nag kal maskuuti anhu soo ne jaa zaydun bal amrun lu dëgg fi lxabari nisbat jaa zaydun nga ni bal amrun léegi mel na na dikkug amar rek nga xabaare dikkug zayd mel na na waxatoo ca dara fa yakunu kal maskuuti anhu fi lxabari nisbat wal amril jali wala lamar mu feeñ ni ki idrib zaydan bal amran léegi amar amar nga dóorlu mu sayd bi nga jëkk a wax dóorloo nga wala dóorloo ko mel na na tuddoo ko woon jël nga àtte ba complète jox keneen wa in ala damiri rafin muttasil atafta fafsil bi damiri munfasil aw fasilin ma wa bila faslin yarid fi nazmi fashiyan fashiyan wa dufahu ataqid nee na damiru rafa boo xam ne muttasil la boo ca bëggee ataf te bëgg mu rafet ci arabiya gi na nga wut loo doxale fa diggante ba na nga wut beneen damir mun fasil boo fa doxale wala boog lu mu gàtt-gàtt na fa leneen doxale waaye nag dafay daldi ñaaw nga doon idrib dóoral nëbb na anta damiru rafa muttasil la nde damir mustatir kay muttasil la waaye nga daldi ca ataf ci lu dul fasil day ñaaw idrib wa zaydun maanaa dóoral zayd na loolu ñaaw na moo tax uskun anta wa zawjuka waaye waxu rek uskun wa zawjuka uskun nëbb na anta atafu ca wa zawjuka rek xanaa andi damir boo xam ne day fasale diggante bi damiru rafa mun fasil uskun anta wa zawjuka wa zawjuka ba ngi ataf ci damir al mustatir fii uskun waaye la jëkk loolu nag fasale nañu ko ak anta jooju looloo koy mën a tax a rafet moom la ni wayin atafta soo atafee ala damiri rafin muttasilin su yoboo mustatir la wala du mustatir ndax soo noon darabta anta wa zaydun mooy baax te damiru darabta du mustatir muttasil la waaye du mustatir ah kon fa fafsil taqleel diggante ba bi damiril munfasil soo soo soo ko defee baax na wala aw wala sax boog fasilin nga taqali koog aji fasale maa jumu man doon ni ki maa ashrakna wala abauna maa ashrakna naaji damiru rafa muttasil la mu ataf ci abauna waaye dalul ni maa ashrakna wa abauna rek kon du rafet waaye mu ni wala abauna lu mu bon bon laaji dox na boog diggante ba diggante atif yeeg maatuf mooy aw fasilin wala nga wala nga fasale koog aji fasale maa ju mu mën doon mu ni dëgg la naam wayari du dikk na ci waxu arab bila faslin ci lu dul benn taqale xaala kaw nihi fashiyan muy lu siiw nag fi nazmi loolu way daroora way dana tax loolu bare na nag ci way sax lool naki qultu is aqbalat wa zuhrun tahaada qultu wax naa is aqbalat ba mu jublu see moom hind masalan na bnahiya mu ataf ca wa zuhrun ak jigéen ñu weex ñu leer ah dégg nga waaye gënoon naa rafet is aqbalat hiya wa zuhrun lu dëgg ah ah ah kani aajin taassaf na ramla mel ni ki nagi àll yu bëgg a fital jaar ci ab beeñ di dem ak nañuy daagoo da koy nëraleeg jigéen ñi hind àndal masala keni aajin taasaf na maanaam fital nañu ramlan ab beeñ xuus nañu ko ca digg bi dem fa kooku nag bare na ci bare na ci way fasha siiw na ca waaye nag lu mu mën doon waataqit fasal dofahu fi l arabiya li mu bare bare ci way daif la ci arabiya gi nag wa wa awdu xaafidin ala wa awdu xaafidin lada atfin ala damiri xafdin laaziman qad jucila ibnu malik nag ni wa laysa indi laaziman id qad ataa fi na fi nadmi faashiyan fi fi nadmi wa nasri saxiihi musbata mu ni wa awdu xaafidin baamu xarafu xafat ala lada atfin ala damiri xafdin soo bëggee ataf dara ci damir joo xam ne ju ñu xafat la nga bëgg caa ataf nee na kon la ngay ataf xarafu xataf ba xafa doon damir ja fokk na nga ko baamu xat ju ila defees na ko ci seen atte ñenn ci ñoom laaziman muy lu war faw ndax yoona yi nee ñu laazib la du dëgg marartu bika wa bi zaydin ngay wax waaye bul ni marartu bika wa zaydin nee na ñoom nee ñu laasim la faw ibnu malik nagit jàmbaar la feeñal na mazhabam ah maanaa wutu la feeñ ndax moom ci ponkali ndax yi nay la waaye alfiyam bi ñetti barab dong la ci feeñal mazhabam ya doy loona rek di nettali wax yamu tànn ci ulama yi loolu tawaadu la rek nde mënoon na andi mazhabam ci ay barab yu bare waaye andi woon na ko ci ittisaalu damirayn ba mu ne wattisaalan axtaaru xayri ixtaara linfisaala feetam nee na walaysa indi laaziman id qad ataa fi nadmi wa nasri saxiihi musbata man nag walaysa laaziman indi nee na baamu xarafu xafat woowu ngir li ngay xafat li ngay ataf dara ci lu maxfuut bil xarf nee na baamu ga man du laazim fi man suya boo gën rafet de waaye gisuma gisuma ni munta ñàkk nag il ngir xat ataa dikk na fi nazmi ci way gis nañu ko ci way arab yi fi fi nasri fi nazmi nga jëkk wax fi nazmi ci way dikk na ci dégg nga xat bitta ah fal yawma qad bitta tahjuuna wa tashtimunaa fadhab fama bika wal ayaami min ajabi fadhab demal fama biki nekkul ci yow wal ayaami nekkul ci bis yeetam seetal wal ayaami maatufun alal kaafil maxfuud bil baa maa adami icaadati al xarf waaye gënoon naa rafet fama bika wa bil ayaami moo gënoon naa rafet loolu loolu dikk na di lu ñu saxal ci nazm wa nasri saxiix ak nasar lu dul woy mooy nasir wala yu di ko firee wesar nazm ak nasr maanaa aljamu wa tafriq loolu mooy maanaa nazmu nazmu bi maanaa aljami nasr bi maanaa tafriq nasara nasara almansura wesaare na ndax nasru moo doon tasaare lu ñu woyul ñu tudde ko noonu maanaa nasru bi ñàkk a woy gi moo mel ni ki ka qawlihi taala tasaaloona bihi wal arxaami ci yenn njàngin wal arxaami am nañu ko jànge jar su ko defee kon loolu kon am na mu ni nag wal faau qad tuxdafu ma ma atafat wal waaw id laa labsa wa hiya infaradat bi atfi caamilin muzaalin qad baqi macmuuluhu daf'an li wahmin ittuqi wal faau qad tuxdafu ma ma atafat nee na faa léeg-léeg ñu ataf ko ànd ak la mu atafoon danañu ko def niki tey fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin uxar maana man kaana maridan fa aftara fa alayhi iddatun fa aftara man kaana fi'l la moom kaana mooy mactuuf alayhi man kaana maridan luñ ca ataf fa aftara aftara fi'lu maat bu ñu ataf ci kaana fi'lu maat nañu ñu boole ko ak aatif baag maatuf bi yëpp xadaf ko daal di rek man kaana maridan fa fa iddatun fa alayhi iddatun waaw ku feebar bu dogul est ce que dana war a fay ah déedéet bu dogul du fay kon nag man kaana maridan fa al fa iddatun fa alayhi iddatun maanaa fa aftara kay loolu munta ñàkk di ndax listiqaamati l maana laa tastaqimu laa yastaqimu l maana bi duni hada taqdir man kaana maridan fa aftara fa alayhi iddatun mu xasaf faagi ak lim wal faa u qad tuxdafu léeg-léeg ma ma atafat wal waaw waawit kat léeg-léeg ñu def ko noonu ndax moom it mbokkum faala léeg-léeg ji waaye nag id laa labsa ba nga xamee ne lënt du am qaala taala sarabila taqiikumul xar ay wal barda maatuufun la alal xar waaye nag xadaf nañu waaw gi ak li mu atafoon naka noonu waxu shaacir ba ba mu ne fi satri thani min al bayt fa ma adri arushdun tilaabuha fa ma adri duma xam atilaabuha ndax wut gi may wut ndaw soosu xaw ma nag rushdu la wala xayi la maa ngi koy wut daal xaw ma li may def baax na am baaxul waaye man daal ma fa ma adri arushdun tilaabuha am xayun mu xadaf dégg nga kooku kon am itam danañu ko def noonu ñuy def waaw xataf ko ànd ak la mu xadaf ko ànd ak la mu ataf maanaa loolu dootu waaw am la ni moom it danañu ko def noonu ñuy def waaw fa ma adri arushdun tilaabuha sadrul bayt nekk yoru leen ko waxyam faradat moom bi nu dikkee ci waaw ba mu ne wal faa u qad tuxdafu mahma atafat wal waaw ak waawit danañu ko ko def wal waaw danañu ko ko def id laa labsa ba lant amut ne ki nu waxoon ci sarabila taqikumul xarra ay wal bard waxya moom waaw nag mu jokkal ko leneen infaradat wéetooda bi atfi aamilin musaalin qad baqi maamuuluhu daf an li wahmi nit tuqi am na lu waaw beroo lu ñu dul def faa infaradat beroona bi atfi aamilin ci ataf aamil musaalin ju ñu dañal ju ñu xadaf joo xam ne qad baqiya dafa fa des maamulam ni ki mafoolu bihim foofu waaw moom dong nga fay ñëw nee na lu tax nag ñu di ko fa nattale daf an ngir jañ li wax min ci juum goo xam ne uttuqiya def ko di wattandiku naxwu qawlihi ida malgaaniyaatu barazna yowman wa sajjajna alxawaajiba wal uyuuna ida malgaaniyaatu su fekkee jigéen ña doyloo seen taar ba aajootuñu lu ñu takk ra di ko rafetoo tudde nañu almaratul xasna gaaniya listignaaiha bi jamaaliha an il xuliy ida malgaaniyaatu su fekkee ñu rafet ñooñu baras na génn nañu yow man bis wa sajjaj na te ñu sewal sees wat ba sewal alxawaaji ba seen yéen ya ni jigéen ñi di def wal uyoona ak bët ya ah wal uyoona foofu ndax mën nañu koo ataf ci alxawaajiba wa sajjaj na alxawaajiba wér na ndax xaajiba la ñuy tasjiij di ko wat ba mu des rëdd su sew ñenn ñi ci ñoom wat ko ba mu set ñu rëdd fa beneen maad madd bu ñuul lu def wa sajjaj na alxawaajiba waaye bët laa tu sajjaj waaye lan la ñuy rafet